Bon. Bonsoir à tous. Euh, je suis venu ici aujourd'hui à l'université Cheikh Anta de Dakar sur les instructions du président de la République, monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre Ousmane Sonko pour faire l'état des lieux globalement sur la situation de l'enseignement supérieur au Sénégal et sur les questions aussi de recherche et d'innovation. Cette, cette euh, visite a démarré depuis la semaine passée où nous avons déjà visité l'université numérique Cheikh Hamidou Kane et aujourd'hui nous sommes venus visiter l'université Cheikh Anta Diop qui, comme vous le savez, est la première université du Sénégal, sur tous les plans. C'est la première université implantée, c'est la première université qui accueille le plus grand nombre d'étudiants, c'est aussi l'université qui, au plan africain, représente dignement le Sénégal de façon prestigieuse en trustant les premiers rangs des différents rankings. Alors, quand nous sommes venus aujourd'hui, nous avons voulu être exhaustifs. Nous avons fait le campus académique, le rectorat, et nous avons fait le campus social. Donc quand nous sommes venus, nous avons été accueillis par le recteur, M. Mbaye, qui nous a fait visiter ses installations et nous a fait tenir une réunion avec le conseil académique élargi. Donc nous avons pu discuter avec les enseignants-chercheurs, nous avons pu discuter avec le personnel administratif et technique du rectorat, nous avons pu discuter avec le SAES e et le SUDES e qui représentent les enseignants du chercheur au, du, du, supérieur au niveau syndical. Donc nous avons passé en revue toutes les questions sans aucune complaisance. Je leur ai fait part de ma feuille de route. J'ai identifié un certain nombre de problèmes que j'ai partagés avec eux. Et par la grâce de Dieu, dans leurs réponses, Ils ont donné aussi l'état des lieux de leurs différents problèmes, mais toujours assorti des propositions de solutions. C'est l'un des points les plus important de ma tournée d'aujourd'hui. À chaque fois qu'on a parlé des problèmes, on a aussi parlé des solutions. Et cette réunion du rectorat s'est terminée avec la visite de certaines infrastructures qui ne sont pas encore livrées. Il y a le problème du bâtiment de la faculté des sciences, fini, non réceptionné, avec un petit problème d'eau, d'électricité et d'équipement. Il y a aussi la question du chapiteau, où les étudiants en droit et en sciences politiques sont censés faire les études. Donc, quand nous avons quitté le rectorat, accompagné encore une fois du recteur M. Mbaï, nous avons une claire conscience des défis qui nous attendent. nous travaillons en partenariat et nous sommes conscients du fait que chaque acteur gouvernement personnel administratif et technique enseignants chercheurs recteurs syndicats tout le monde doit faire un effort pour que les difficultés liées à l'enseignement supérieur au Sénégal soient résolues dans le cadre d'un partenariat et dans le cadre du dialogue social. Et nous sommes arrivés à ce consensus. Pour aller maintenant au fond des questions, j'ai prévu de les rencontrer, les différentes entités individuellement pour regarder quelles sont les solutions techniques applicables à ce qu'ils sont en train de faire. Parmi les questions importantes soulignées au niveau du rectorat, il y en a deux à trois qui me paraissent urgentes. La question de la stabilisation de l'année scolaire est une question urgente et c'est une question d'intérêt national. Tout le monde sait que depuis une dizaine d'années, les années académiques se superposent. Et cette superposition d'années académiques connaît des, des conséquences sociales, financières et économiques désastreuses. On a même avancé le chiffre de 25 milliards qui pourraient être économisés si, dans le cadre d'un partenariat et d'une discussion fructueuse, nous parvenions à stabiliser le calendrier électoral. Nous en accord avec les différents partenaires, d'organiser dans les plus brefs délais des concertations du secteur pour voir comment arriver à avoir un calendrier académique stable. Le Sénégal est l'un des rares pays au monde qui n'a pas un caractère académique stable. C'est possible, je suis convaincu que c'est possible, toutes les parties prenantes savent que c'est possible, mais nous savons tous aussi que cette stabilisation et les efforts qui doivent être par les enseignants et les étudiants notamment, doivent être accompagnés par un certain nombre de mesures d'accompagnement. Nous allons travailler à ces mesures d'accompagnement. Donc très rapidement, nous reviendrons vers vous pour communiquer sur cette question. Mais sachez que la stabilisation de l'année académique est une priorité absolue pour nous. Nous avons aussi visité ici un certain nombre de chantiers, ce qui me permet de faire le lien avec la visite qu'on de terminer avec le COUD sous la conduite du directeur du COUD, M. Sen. Ils nous ont très très bien accueillis. J'ai été très heureux de retrouver le restaurant universitaire bien après mon départ de l'université. Le service qu'on nous a présenté est très correct. Bon, je leur ai demandé si c'était un service spécial pour le ministre ou bien c'est ce que les étudiants mangeaient tous les jours. Mais j'ai été rassuré par en tout cas ce que j'ai vu et ce que j'ai consommé. parce que j'ai tenu personnellement à aller dans les restaurants avec le directeur du COUDS, avec le recteur et tous les directeurs de messerie que m'ont accompagné pour goûter au plat des étudiants. Je suis encore en très bonne santé, bien rassasié. Ça veut dire que les clignotants sont ouverts. par, la fin, euh, suite, nous avons visité des chantiers. Ce que vous appelez, vous, communément, les chantiers AMSA. Ce sont des bâtiments qui sont prêts, pas encore réceptionnés, avec un certain niveau de qualité que par moi Il y a encore des petits problèmes techniques et administratifs qui font que ces, gouvernements, euh, ces, ces, euh, ces bâtiments ne peuvent pas être donnés pour le moment aux étudiants. Mais nous avons pris l'engagement que pour les étudiants nouvellement orientés qui vont arriver à l'UCAT, ils auront la priorité pour occuper ces bâtiments. Au niveau du ministère, nous ferons toutes les diligences nécessaires pour qu'assez rapidement, ces bâtiments soient mis à la disposition du Et par la suite, nous avons tenu une autre réunion ici, de la même ampleur, de la même consistance que celle que nous avons tenue ce matin au niveau du rectorat. Et là aussi, nous avons rencontré toutes les parties prenantes. Nous avons rencontré le COUD et ses agents. Ils nous ont fait état de leur doléance, encore une fois aussi assortie de propositions de solutions. Nous avons rencontré des étudiants. Je leur ai dit, j'ai jamais vu des étudiants aussi bien habillés et aussi élégants. Bon, ils ont dit qu'ils l'ont fait aujourd'hui en l'honneur au ministre. Alors, ils ont présenté leurs problèmes. J'ai prévu aussi de les rencontrer dans les prochains jours pour aller au fond de ces problèmes et trouver ensemble des solutions qui nous permettent de sortir de ces difficultés. Ici aussi, j'ai rencontré les syndicats au niveau national qui étaient particulièrement bien représentés J'ai écouté leurs doléances, j'ai prévu de les rencontrer. Et enfin, nous avons rencontré aussi les repreneurs des restaurants, qui sont des privés, mais qui sont des privés qui participent au service public national de l'enseignement supérieur, avec qui nous avons quelques difficultés de paiement de certaines dettes, mais ils font quand même l'effort de nous accompagner malgré le fait qu'il y ait ces dettes qui existent. Je tiens à les remercier personnellement parce que nous les considérons comme des partenaires. Donc globalement, l'université de Dakar, qui est quand même le pivot des universités du Sénégal, a été visitée aujourd'hui. Et à partir d'ici, nous avons une idée assez précise des problèmes qui nous seront posés dans les autres universités que nous allons visiter très prochainement. Et de ce point de vue, l'université de Dakar est à la fois un symbole et un point de départ. Mais je leur ai dit que nous sommes en début de régime. Nous venons d'être fraîchement élus et nommés. Nous sommes en train de faire un état des lieux, tel que demandé par le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Et sur la base de cet état des lieux, nous allons proposer des solutions dans les plus brefs délais. Mais les solutions ne sortiront pas d'une baguette magique. Chacun d'entre nous devra faire des efforts pour que le pays s'en sorte grandi. Ce pays, le Sénégal, qui est plus grand que nous tous. Des problèmes, il y en a à l'UCAD, il y en a au coude, il dans toutes les universités. Mais des problèmes, il y en a partout aussi au Sénégal. Le gouvernement, qui fait des efforts incommensurables pour régler ces problèmes, a des ressources limitées qui par ailleurs ont été votées avant l'avènement de ce régime. nous allons devoir, pour cette première année, faire avec les moyens du bord. Mais je suis sûr que si tous les partenaires sociaux consentent à faire des efforts, nous allons facilement arriver à des solutions dans la paix sociale, dans la concorde et dans l'union des cœurs. Je disais tout à l'heure à l'intérieur que nous sommes dans un pays où nous avons connu des remous sociaux et économiques les dernières années. Dieu a fait que nous avons organisé des élections et un président a été élu, il s'appelle Bassirou Diomaye Faye. Il mérite d'être soutenu, il mérite d'être accompagné, il mérite de réussir, parce que sa réussite sera la réussite du Sénégal. Et pour qu'on ait cette réussite, il faut que chacun s'oublie un peu, individuellement, pour l'intérêt de la nation. Il faudra que chacun y mette du sien, du sien du moins, pour que nos universités, que je représente ici aujourd'hui, puisse continuer à décoller et faire notre fierté. L'avantage du ministère que je dirige, c'est que c'est un ministère où il y a beaucoup de problèmes, où il y a beaucoup de défis, mais c'est un ministère où ce sont les acteurs qui détiennent par devers eux les solutions qui permettront à ce secteur de décoller. On ne peut pas bâtir un pays sans avoir des ressources humaines et un capital humain de qualité. Et le capital humain, c'est dans nos écoles, c'est dans nos universités, c'est dans nos instituts. Tous ceux qui doivent diriger le Sénégal demain, après Bassirou Diomaye Faye, sortiront probablement de cet enseignement supérieur, quelle que soit la langue d'apprentissage. Donc nous devons être conscients du fait que c'est un très grand ministère qui doit impulser le développement du Sénégal à travers le développement du capital humain et que nous avons besoin de tout le monde, y compris des journalistes dans leur communication. Mettre le curseur sur mettre le curseur sur les efforts que tous les acteurs sont prêts à faire pour qu'il règne une paix académique et sociale au niveau de l'université. C'est vraiment le message que je voudrais porter aujourd'hui de la part du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre, en sachant que toutes les observations que j'ai faites ici leur seront transmises pour que l'état des lieux soit fait, pour que le discours de politique générale du Premier ministre soit bien préparé et pour qu'ensemble nous expérimentons les solutions que nous préparons pour le peuple sénégalais. waaw asalaamaaleykum. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm. na kenn ñëw awu ma nag ngir yàlla. dafa bii nga de. na kenn ñëw. na ñëw. ah candidat s'il vous plaît. waaw ah, dafa diis de. non Maria a ko téye ñëw taa tey ñëw ah folo ko bone boobu. Ah, C'est bon. waaw oh. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen wax ne tey dama fi ñëwoon en tant que ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation nekk ndaw loo xam ni le président de la république Bassirou Diomaye Faye moo ma yebal moom ak son premier ministre Ousmane Sonko gouvernement la boo xam ne dañ koy door a fal ñu ne liggéey bi nga xam ne ci lañu ñu jublu dinañu fexe balaa ñu ciy def dara ñu xam lan mooy situation dëkk bi fan la dëkk bi tollu ak lan mooy tolluwaayu dëkk bi man nag ci pàcc bi nga xam ne moom lañu ma dénk muy njàngum université yi man ni naa def tournée parce que bëgguma rek wax loo xam ni moom lañu ma jox ci ay documents ma lire ko bëgguma rek wax loo xam ni mooy sama xalaatu bopp ci laa décidé ne damay def tournée nationale dem seeti université yi autorités yi nga xam ne ñoom la fa état teg gouvernement teg leen fa ma waxtaan ak ñoom xam nan la ñuy liggéeyee lan mooy seen problème ak lan mooy seen solution tournée boobu maa ko commencé semaine passé commencé ko ci université numérique Cheikh amidu Kane waxtaan ak ñoom waxtaan yu am solo tey début de semaine bi ñu ñëw université Cheikh Anta Diop bu Dakar université Cheikh Anta Diop bu Dakar jalul présenté parce que moom mooy taawu université yi ci Sénégal moo jëkk a juddu moom mooy université bi nga xam ne moo ëpp étudiant parce que cent mille étudiants c'est une ville waaye itam mooy université bi nga xam ne mooy représenté dignement Sénégal ci Afrique foo dem ci Afrique francophone ñu ne la université Cheikh Anta moom moo jël premier ci classement bi loolu nag nekk suñu fierté boo xam ne képp kuy sénégalais da nga ciy am neex am ci fierté lu ñu ñëwee nag tournée bi tey dañu ko commencé fa la ñuy woowee rectorat li ngeen di woowee campus académique nga xam ne fa la ñuy jàngee ba ñu ñëwee ñu ngi fa fekk monsieur le recteur Ali Mbaye nga xam ne dalal nañu conduire ñu boole ñu ak équipe yi nga xam ne ñoom lay liggéeyal ñu waxtaan fa waxtaan yu am solo ci waxtaan yooyu fexe nañu ba ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci jëmee côté rectorat fekk nañu donc nañu waxtaanee ak waa rectorat. noonu la ñu waxtaanee ak professeur enseignant chercheur yi nga xam ne ñoom ñooy jàngale noonu la ñu waxtaanee ak personnel administratif et technique yi nga xam ne ñoom buñ ci bokkul liggéey bi du dem noonu la ñu waxtaanee foofu ak SAES ak SUDES nga xam ne ñoom ñooy syndicat yi noonu la ñu waxtaanee ak ñëpp ñi nga xam ne représenté na am nañu représentant ci conseil académique président conseil d'administration bi aussi mu ngi fa woon ak ñamu àndal waxtaan yooyu nag la ñu ci jëlee. bari na ay poñ yoo xam ne ñoom ñi di liggéey ci université bi wax nañ ñu ne moom moo leen amal solo naturellement wax nañ ñu seen ay problème wax nañ ñu seen ay doléance waaye nag li ma gën a neex ci visite bi mooy fuñ ñu waxee problème waxaale nañ ñu ne li problème bi kat lii ak lii moo koy saafaraal donc ni ñu fi ñëwee ak valise u problème noonu la ñuy ñibbee itam ak valise u solution en sachant que ay magu jëmm lañ ay partenaires lañ bu ñu toogee waxtaan ñu juboo ci lu bari benn nag ci point yooyu parce que bari na mais am na ci benn boo xam ne daf ñu soxal te priorité la pour ñun parce que depuis ñu ñëw ci ministère bi dañu gis ne problème yu bari yu fi am mu ngi jógee sur le fait que Sénégal amatul calendrier universitaire amatul calendrier académique calendrier académique mooy école telle date lay tijji telle date lay tëj loolu université Sénégal yi booy xool pratiquement amatuñ te loolu ñu ko ñàkk am dafa am ay njeexital ci njàng mi ci bourse yi ak yeneen yu bari nee na ñu tey bu ñu fexe woon ba année scolaire bi delluwaat normal nga xam kañ ngay tijji ak kañ ngay tëj lu mu bon bon di nga ci génne vingt cinq milliards yoo xam ne da koy économiser te vingt cinq milliards yooyu ci université bi lay delluwaat loolu nag waxtaan nañu ak ñëpp ba décidé ne ci fan yu néew dinañ ci def séminaire boo xam ni dinañu dajale képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci université bu ñu ciy jógee dinañ am résultat boo xam ne dinañu wan nan la ñuy stabiliser année académique bi ba xam kañ la ñuy tijji ak kañ lañuy ñuy tëj résultat yooyu bu ñu paree dinañ ko jébbal le premier ministre Ousmane Sonko jébbal ko la président de la République Bassirou Diomaye Faye en espérant que dès cette première année et avec les premiers résultats du bac dinañ mën a orienter étudiants yi tranquillement waaye loolu nag bu ñu ko waxee xam ne mën na am partenaires yu ñu ko seqal yëpp xam ne mën na am ñun waa ministère bi nangu nañ ne dafa am lu muy àntal parce que nag mënoo ñëw aussi ñenn ñi nga demander leen yenn sacrifice yi pour année bi normalaat ba pare bàyyi leen ci condition de travail yi nga xam ne ci lañ nekkoon donc loolu ministère bi dina ci liggéey ba nga xam ne lépp luy mesure d'accompagnement bu ñuy warloo ak enseignants yi ak PATS yi dinañ ko def bu soobee yàlla te loolu benn ci ñoom mooy chantier yi dañ lay wax ne la suñu chantier yi parewul mooy tax étudiants yi amuñu fu ñuy jàngee dañ lay wax ne enseignants chercheurs yi bariwuñu moo tax pour corriger copie yi ak def évaluation dafay metti yooyu yëpp dinañ ci waxtaan bu soobee yàlla ci séminaire boobu mais li nga ciy jàpp mooy que ce soit muy COUD wala muy rectorat def nañ ay visite de chantier ngoon bi ba ñu jógee rectorat ñu ngi ko consacré COUD le directeur du COUD monsieur Sène fi taxaw dalal yi dalal bu rafet ak dalal bu neex ñu commencé dem ci université bi ci restaurant bi añee fa ak étudiants yi muy añ bu neex nag wax dëgg yàlla xaw ma nag monsieur le directeur ndegam añ la bu ñu jagleel pour ministre bi wala ndegam étudiants yi tous les jours loolu la ñuy añee waaye daal teral nañ ñu jox nañ ñu añ bu neex añ nañ fa ba suur bu dee étudiants yi loolu la ñuy lekk chaque jour macha allah sant yàlla. ba ñu paree aussi visité nañ chantier yi nga xam ne ñoo fi nekk ci rectorat déjà visité woon nañ fa ñaari bâtiment benn bi mooy chapiteaux yi nga xam ne moom la étudiant en sciences politiques yi war a defee cours pareegul waxtaan nañ ak ki nga xam ne moo yor chantier boobu jox nañu ay délais yoo xam ne ci lu yàggul lool étudiants yi dinañ fa mën dem jàngi te délais yooyu mu ñu jox bu dee respecté nañ ko bu ñuy retravaillé waat ci calendrier académique bi dina gën a yomb am na fa tam bâtiment boo xam ne fac science moo ko moom pare na mais dafa am problème mu ndox problème mu équipement ak problème mu boo xam ne dinañ ci taxaw liggéey lu mu gën a gaaw a gaaw bi ñëwee nag COUD au delà de restaurant bi ànd nañ ak directeur du COUD ak waa AMSA ñu visiter pavillon yu bees yi nga xam ne moom ngeen fii gis pare nañ en tout cas ba ma fa duggee visiter bu dee wax dëgg rek moo neex yàlla nekk na ay logement yoo xam ne rafet nañ rafet nañ lool niñ ko defaree baax na te xam naa étudiants yi nga xam ne ñëw ciy dëkk dinañ nekk dans de bonnes condition de travail li ci des nag mooy dafa am affaire këyit yu ñu war a lijjanti ñun ak COUD ak waa ministère bi ba nga xam ne ci fan yu néew dinañ ko jox kudd mu mettre ko à la disposition des étudiants kon jàpp nañ ne étudiants yi nga xam ne ñoo war a ñëw ñu leen joxee loolu ñu nekk ci chambre universitaire yooyu nañ nekk dans de bonnes conditions de travail université Sénégal jëm kanam fi ñu terminé nag mooy réunion bi ñu def ak waa COUD rencontré nañ waa COUD ci boppam xam seen problème rencontré nañ syndicats yi xam seen problème rencontré nañ étudiants yi xam seen problème rencontré nañ le personnel administratif et technique xam seen problème rencontré nañ aussi repreneurs yi waaye comme nañ ko defe woon sa suba ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ku ci wax sa problème wax nga noo xalaat ne moom nga koy noonu lañ koy saafara donc ministère bi jot nañ doléance yi ñu ngi ci liggéey problème bi am Sénégal nag mooy ñun gouvernement buy door a ñëw la boo xam ne fekk nañ ñu voté budget ba pare dinañu taxaw ci saafaraal problème mu étudiants yi problème mu université problème mu COUD mais ñuy ñaan nit ñi rek ñu xam ne ñun dañu nekk di door a toog problème yi fi nekk gis nañ ko te bu ñu àndee liggéey en partenariat bu soobee yàlla dinañ am solution ci problème yooyu may sant ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi nekk mooy le recteur monsieur mbay mooy le directeur du COUD monsieur Sène waa ministère bi ma àndal étudiants yi ma accueillir personnel administratif et technique ne leen lii rek mooy Sénégal tey li ma gis UCAD xam naa ne bu ma demee ci yeneen université au niveau du Sénégal loolu laay gis donc de ce de vue UCAD symbole la UCAD point de départ la appel bi may lancé rek mooy na ñu nit ñi jàppale ci liggéey bi Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk ba ñu xesee ba def élection ba ñu fay Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye Faye mënatul xàmmee ku ko voteel ak ku ko voteel ku ko voteel ak ku ko voteelul sénégalais te moom dafay liggéey pour sénégalais yëpp moo tax nañu toogaat xoolaat suñu bopp dund nañ fi ay at yu metti ci trois dernières années yi loolu jeex na Sénégal delluwaat nañ nekk benn ni ñu jàppalante ñu ñëpp dans le cadre de la solidarité dans le cadre du patriotisme ku nekk yéene sa bopp jàmm ku nekk fa nga toog di liggéey y compris yéen journalistes yi ngeen jàppale ñu même ci communication bi pour sénégalais yi gis ne ñii ñu fi teg ñu ngi liggéey tekkiwul nag ne ku d'accordul doo wax ku d'accordul di nga wax la nga d'accordul ñu waxtaan ci parce que ñun li ñu intéressé intéresser le président de la république intéresser le premier ministre mooy trouver des solutions pour les sénégalais maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. merci beaucoup. merci waay Massa Thion.